Ah, pour nous, la Cour a refusé la uh-huh. Alors que nous sommes d'avis que la Cour devait vivre Et en fait, euh, puisque la Cour n'a pas, il n'y a pas de délai fixé par la loi, il est clair que la décision définitive sur cette question pourrait ne pas être, ne, n'est-ce pas, qu'après que tout soit terminé pour, euh, comment dirais-je, la question des parrainages et peut-être même le dépôt des, candidatures. Comment euh, euh, Je dis que moi je constate que la Cour a refilé le bébé à une autre juridiction, alors qu'il n'y a aucun délai qui est fixé, et qu'avec nous allons vers une situation où, de fait, on empêchera Ousmane Sonko de prendre les fiches et on empêchera aussi Ousmane Sonko doit en fait intervenir. Là, vous savez, nous, tout ce que nous avons, nous sommes légalité et nous suivons des adversaires qui, qui ne sont pas loyaux et qui donnent toujours des coups bas de la ceinture. Donc c'est cela la réalité et cela avec le peuple sénégalais et avec la communauté internationale, nous, avons voyé, nous voyons des pratiques antidémocratiques et nous avons aussi une situation qui fait que nu avons vraiment mal par rapport au fonctionnement normal de l'institution judiciaire. C'est ce que j'avais a dire. Ah, ah, comment atte bi daal tous tukkeewu ci nee na daal que atte bi juge Ziguinchor na mu attee ne que moom am na sañ-sañu atte yëgle boobu dañ ci waroon boole euh, bu ñu yóbbu kayit yi mairie ba pare yëgalaat ko ko loolu juge bi dafa yokk ci li yoon wax dafa waroon yem ret fokkal yoon yemloo moom moo di que yóbbu nañ ko kër Ousmane Sonko ci yokkute boobu nag loolu dafa di loo xam ne que euh, maanaam dafa yàq atem kon boog léegi faase na atte boobu atte boobu nekkaat na tous kon dañ ko war a attewaat te léegi kon tribunalu euh, jox na ndigal tribunalu dakaar ñu bamtuwaat atte bi saytuwaat ko loolu nag li muy tekki moom moo di que ci po bi ñuy po bu fekkee ne que loolu gis na ko et que problème mu kayit rek la na wax loolu moom est-ce que kayit boobu juge ba la nee na que huissier bi dafa waroon yónnee poste kayit bi pour que Ousmane mën cee jot. ñoom nee nañ ko loolu dafa cee yokk su fekkee ne dafa cee yokk war nañu mën a wax léegi lan la ñuy dogal ndax Ousmane dañ koy bàyyi ci liste bi wala ndax Ousmane dañ koy wala dañ koy dind ci liste bi wante doxalin bi foo ñuy jëm moom moo di que dañoo nar a mujj di dem di dem di dem ba nga xam ne que parrainage yi jeex na te fekk inscrire ñu Ousmane duñ ko joxe fiche am muy dem di dem di dem ba ñu joxe candi candidature yi suñu joxee candidature yi fekk Ousmane ay kayitam deful parrainage du mën a bokk bu boobaa ñoom bu ñu ñëwee nekk Ousmane war na bokk kon kooku en fait ñu ngi indi situation boo xam ne que euh, ñoom ñoo xam fan la ñu bëgg a jëmee réew mi en tout cas gëm ak yaakaar yi ñu amoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo ñànk réew mi dégg nga ña ca dese woon tuuti sax gëm-gëm gëm-gëm baa ngi.